nekk si jàmm euh, ami jaas nag mbëggeel bi nga xam ni moom la am ci ami euh, day mel ni rek koo xam ni daa bokk ak moom deret te xamu ko ndax nit yàgg naa defal nit lu baax te du ko du tax rekk mu daal di koy defal yenn yi rawatina nag li Diaz def ndax tëdd kaso euh, ndax nit dala rendre woon service ak nu mu mënti toll loolee lu yomb te it du ñëpp ko mën waaye nag loolu lañu ñu naan reconnaissance ak sàmm kóllëre waaye ndax gis gis nañu fi ba tàyyi nit seq ak moroomam teraanga te bu ca noppee mu daal di koy fàtte waaye nag li Dias def war nañu see rek tiire leçon bu baax a baax. njabootu Bassirou nag gannaaw bi ñu nekkee jamono yi yépp ci fitna mel na ni mbégte ba ñu mas di dund rek dellu siwaat na ca kër ga ndax Jeanne ak taawam bi di Boris ñoom gis nañ leen ñuy waxtaan di kaf bay ñoom nag depuis bi série bi tàmbalee ba léegi dañuy wone nii dund en famille dara dàqu ko rawatina nag bu ngeen booloowee nekk benn taxawaayu Bachir si njabootam euh, muy wane bu baax a baax ni nga xam ni noonee la bàyyi ju baax war a mel waaye itam ni nga xam ni la jëkkër ju baax war a mel euh, ndax nekk na koo xam ni lépp lu muy dugg rek ak di ko def euh, bënooru famille wam rek la si daal di jiital même bu dee moom bu ca paree da cay loru wala dafay am rek dara lu ko cay gaañ mu fexe nag ba ay doomam daal di koy ñeme muy lu am solo ndax parfois da gis doom yoo xam ni bëgguñu sax seen papa wàcc ndax daa yóbbu seen fit loolu nag ku koy def rekk war nga koo bàyyi ndax doom euh, doom euh, mën na mën nga koo yar te du la ragal ndax damay dégg ñu naan doom bu la ragalee euh, bu la gisee rek danaan cocc lépp loo bëggul du ko def waaye bu la gisul lépp loo xam ni rek moo ngi ci xelam te bëgg na koo def rekk da koy def ba tax papa ju ne war naa fexe ba ay doomam rus ko te bañ koo ragal ndax ku la rus mu gis la ak mu ñàkk laa gis yépp li ngay bañ moom da koy jomba def te bu boobaa sa kër dina gën a neex comme këru basur ndax ragalul dina nekk di foo di kaf ak yow te loolu daa am solo ci diggante waajur ak doomam bu ñu jàll ci beneen séquence Lisa di sex friend bu Lamine euh, moom naka gannaaw bi ko rakkam bi bettee ak moom euh, boole na ko ak yaayam euh, ba tax yaayam daal di koy woolu daal di koy yàq lu mel ni xeme waaye gis nañu ni nag faute bi yëpp yaayam la ndax situation bi ñu doon dund moo tax mu dal di maye Lisa ndax alal te kooku Lisa bëgg ko woon maanaam alal moo taxoon rek dal di maye domam euh, luñu nan rek mariage forcé euh, ngir génn ci situation bi nga xamni ni lañu la doon dundu euh, lolé nak kuko def tamit lor nga sa dom ndax rek néegu sey dafa xat te ko bëggul rek mënoo ko bokk ak mom mariage forcé nak li ni di am jëkkër am far bokku na ci ay conséquences am waye itam sey bu gaaw tass itam mën na ci am kon yaakaar dom dom boo maye té bëggu ko rek te bëggo ko lor da nga koy may ki nga xamni ni la bëgg ndax jigen boko ko mayee ku mu bëgg euh, dina ko sëyal te sax damay dégg ñu naan euh, amour mooy base du sëy euh, kon rek da caa moo ca ëpp solo ndax loo gis rek bu amul base rek du mën a sotti ñu jàll ci taa Aida ak Ami ñoom ñaar nag comme saa su ne bu ñu gisantee ñoo ngi xuloo ak waxante lu ñaaw rawatina nag taa Aida moom mënul disee rek ki nga xam ni moo di Ami waaye Ami itam en bi nga xam ni am na ko ci taa Aida ndax deewu aana bi saa bu ko gisee rek day gën a yokku ba tax saa su ne day bëgg di ko gis di ko naqaral ndax xam na ni Taa Aida mënu koo supporté te it à chaque fois day ànd ak Mazib di ko wan ni ñoom ñaar dañoo bëggante te dañoo nekk te loolee la Taa Aida gën a bañ ndax bëggul Mazib di ànd ak Ami ñu jàll ci beneen séquence Saliou nag li taxoon rek mu bañoon a maye Lamine ak May xam na ko ndax famiwam kenn rek bëggul ci sëy ak beneen xeet mu mel ni ñoom mbiru kast daa nekk loo xam ni fawewuñu ko ci famille boobu li mu doon ragal moo am ndax bi mu waxee ay mbokkam day maye Lamine ak may dañu ko rek daal di dal wax ko lu nekk ndax ñoom nee nañu seen deret dara du ko rax waaye Saliou moom ak lu mu metti metti jël na rek li nga xam ni moo di bënooru doomam daal di koy teg ci kaw lépp te loolu mooy li nga xam ni moom moo waroon a am bu yàgg ndax bu ñu ko defoon li jot a am yépp euh, du am waaye comme ni ñu koy waxee rek euh, mieux vaut tard que jamais euh, waaye problème mu caste kilifa yi rek war nañu ko xoolaat bu baakha baax euh, ndax limu lor ci ay xalé bari na trop euh, te du nak lo xamni ci si diine lañu ko tek wala ci l'islam euh, lepp rek ci aada lañu ko tek ñu jall ci lamine ak lisa lamine nak limu nekkon ak lisa yépp masul xamni ni borom jëkkeer la nekkal ba tax nak ko lisa waxee mbettel bu reey reey la ci am ndax dara gënul metti nga xey rek ñu ne la jabaru jambur nga nekkalon bobu ba di def ak mom nak sudul nonu mu melni nak seen diggante ñom ñaar fi lay yam ndax lamine japp na ni li sa koo togn te togn bobu nak mo na ra effacer lepp lo xamni mas nañu ko dundo ci lu bax wala ci lu neex euh, loolu nak day wone rek ni euh, mbettel limu meuna jur ci diggante euh, ba tax ay nit buñu nekké ak lu mu metti metti dañu war di waxante deug ndax deug moy ñeuk te it moy muju ñu jéxal ak séquence bu muju bi gis ni projet bi nga xamni sa la ñom ami nekkon basur ta ayda ak mazib jeexna bañu amal rek li nga xam ni moo di soirée d'exposition bi euh, foofu nag ñu gis fa rekk li nga xam ni euh, li fa jot a xew bari na trop waaye mel na ni taa Aida ay ñaawteefam euh, moo ngi ci yoonu feeñ ndax nit di nga def dara di ko nëbb waaye bu ñu la sësee ci mur bi bu yàggee nga wax lépp ni mu demee woon te it nag lépp lu nekkoon ci sa xol rek di nga ko génnee te gis nañu ami fu mu toll nii moo ngi koy provoqué ngir rek wax loo taa Aida te loolu am na am na ko ndax rek bi mu leen xamal leen ni daa ëmb daa Aïda daa taxaw tem ne ko doom ji du fi juddoo ba tax exposition bi xuloo la mujjee ndax kàddu yu ñaaw yi nga xam ni taa Aïda yëkkati na ko ci jëmale ko ci ami te papaam a nga fa woon te papaam du nangu loolu masi bi itam mu jëlal ami part nag moom daa mel ni rek day fàtte ni moom du yàlla te yàlla moom moo xam ban doom mooy juddu ak ban doom moo dul juddu waaye moom gis nañu ni palaasu yàlla rek la jël taxawee ko ci série bi ndax ku ci ëmb rek moom dee ëmb bi neexu ko day fexe rek ba nga avorté loolee nag dina ko gis ndax avortement faat bakkan la te bakkan dafa foor ku ko faat rek kon di nga koo gis kon ñu topp leen rek ba xam su wànneen di mujjee ki gëtam waaye laata boobu woyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte ba suñu cloche de notification bi ngir ngeen mën a jot ci saa si suñuy vidéo yi nga xam ni ñoo ngi koy dugal ci suñu chaîne YouTube bi jërë ngeen jëf et à très bientôt inshallah